at mii di ñëw yal na dikk ak jàmm joppaku yiw yal nay atum njariñ ak yërmaande daal ak i mbég ku nekk yal na ci am jàmm ak yëfam yu ko lew yal nay atum barke yal nay at mu gën ati at ku nekk yal na ci jëm kaw fam ñoñam jëme kaw yawat mi yal na nga far def gan gu ñépp gërëm teral la teg la ca kaw ngir sant rekk ci yow jullit ñi yàlla na seeni xol ni guy yi ci yow ñuy topp yàlla bu wér ak cant rekk di xew ren yal na diine ji jóg fawal ñoñam bu rafet yéefar yi yal na ñu suufe suufe far mi selaw yal na jullit àtte mboolem réew yàlla yi nag sikkar si jëm kaw ñu naa askay diraam ak daw mbégum jullit yal na ñëw ren ñëw gu bette gu fis ñi far bégal mag bégal góor ak jigéen ak ndaw amiina amiina moo teengee na nangu bu wér kuy gàntu loo xam ne àtte bi yàlla far ma ca daw lu yàlla àtte ci nun yal nay lu nuy tax a bég yal nay lu tax ñépp far muy ñeeka yéem aka naw lu yàlla àtte ci nun yal nay lu nuy tax a bég yàlla nay lu tax ñépp far muy ñeek yéem aka naw te yàlla na àtte sunuy mbir jub nu teewe déwén te gudd fan fekke mboolem cant guy xala ñëw notal nu buur aki baadoolo ki jaam aki gor ak ceddo ak sëriñ ak góor ak gone ki jigéen te guddalal sunu fan wi te ñu faw ca kaw mboolem ku nekk ca kaw may nuy ngënee lëkkiteen yaafab la dee faa fexe kay wut ba sànku ji far jébbal nu nit ñépp xëy naanoo ka waaru ci yéen nun rekk noo waaru ngir feesal nganoo ki njariñ ba noppi dox sunu digg ak gémmiñ ak jëfi neen gémmiñ gu jëm si ci nun ak lor ju jëm si ci nun nga fekk ko faw mu dal nuy teggi jëm ci ñeneen yaa mucc yow ci lu bon yaa muslewit ci lu bon yaa tax ba aajo wu nuy laar ak galen ak reen yaa boole biir yépp ak mboolem nawet yi jubal yaa tax nu doyle dugub ak sëb te doyle ëreen yaa tee nawet yépp ak mbir yépp yàqu te bon yaa di defarkat amoo kem fii amoo ko feneen nga bég nu bég faw nuy santante waxtu jot te bokk gudd fanay saa aajo man du leneen fajal ma saa aajo ji ak aajo juy xala ñëw te bette nuy mbég yu kenn dul dox di foog ak seen te dolli nuy mbég kii ndolleen te dolli sunuy gëm ak sunub yar nu sax ci jag te kenn bañ a béen na téeñi cant ak mbég naa puttu puttu fi nun ci sépp saa nuy teral góor ak gone ki jigéen budul ko nag la ma déggoon jëkk tey ci lu jub ma topp saa njali man tey wey di wey ba ni mes budul ko nag la ma déggoon gaaya jub di ko wax ma jekki jekki ni mes kenn dootu gis ku ma gis budul ko nag la ma daa diglee ka wax ci lu jub xam naa ni lëf du ko jar ngir kon ma def lu ma rus budul ko nag la ma daa diglee ka wax ci lu jub xam naa ni lëf du ko jar ngir kon ma def lu ma rus budul ko nag sàmm ngor ak sàmm wëllëre it ma wax lu ñépp ni xaaloo moo ko xam li lembas budul ko nag la ma dee faa dox di dégge lu jub ma def lu tax penku ak waasow bokk ni mas budul ko nag li ñu naa ciy baabakar ak a jub ma def lu ñépp ni njekkar am na lii gën a fés lu jub li ñuy wax ci man nii faw far na ma ngëpp ba xam ni man mënu maa def sax lu ñaawati bis xanaa ma jekki te far muñ ngëpp ci yàlla bu wér te xam ni àddina tiis ak coono rekk a ci des foo daw ba dem fa banaa fii genn lor du fi am nga seeru fay lor faral far muñ te jàpp ko fas muñay garab faralub doomam ni cell te sax te gëmmu sax xami wan naa lay naqar aki pes loo xam lii boo ko wannee raw lu bon jot yiw du neex a fab wan wannal merte muñ ko la xas weyaale tiis ak tawat ak nëbb jëf ju rafet di mucc kay musle moo gën jóg di wéy ba ni mes man day damay ñaana kay yaakaara kay seenoo lu man di xew aka am may ñaana kay seenoo ak baax a sedd sama xol gu yi waaye du tee bu may bon ak bu ma baaxee lépp may seenoo li yàlla am ci ngëneel ak ay njariñ duñu jee bu may am ak bu ma ñàkkee lépp may seenoo koo xam ne day jàpp am noonam ni tegg ca kaw asal ku koy sopp war nay sant kay séenoo sëriñ bi laa sant ngir mootee ma dëpp ba tey moo wan sama xol lu tax may jaaba kay séenoo gis naa ko xam naa ci moo mës lëf dinaa ko biral ngoram gu réy gaa waral koo seeru muy séenoo gis naa ko xam naa ci moo mës lëf dinaa ko biral ngoram gu réy gaa waral koo seer muy séenoo du topp kenn du digluy wax du jàpp lu bon du fekke ay ku ko xam loo bon bonit séenoo yàllaa ko tax di def ak yonen ba sell na jëf du bay ngirub aña kay benkal akay séenoo jógal liggéeyal ko tey daw ak tayee la ka bañ ku koy liggéeyal mu yët kopp añ balaa séenoo bu dul ko nag yërmandeem ak sellalam gama xam giñ naa ni kenn dootu gis may son na kay séenoo diirub li may dégg jëmmam jeeka xëy di ko gis bari ayib duma tee yaakaara kay séenoo xëy benn raw jépp lor jot jépp waaju nu raw baraw ko fopp te gudd fan la nuy séenoo gaa yi tabax gi tabax man xawma seeni ayib ku xëy defal sab sëriñ lii sax mu far sa ayib ñoo mat di wax marxaban ñoo mat di wax jërëjëf ñoo def lu jar jërëjëf ñoo def lu yéemu ajab kañaana bon moo waral nit ñépp nekkuñu tey di yéema kay waaru naa cay wii defi naka jub jaaraama yéena rafet jëf yéena def lu ma saf yéenay murit yu ma saf yéenay murit yama nopp ku wax lu ñuy sib ci yéen ak seeni jëf du ko xam ku xam du wax la ci yéen ak seeni jëf lu ñu sib koo xam ni teg na mbiram teg ak juram ci loxob sangam di aw ndigalam saytaane dootu ko ngëpp saytaane teg dina leen ak seeni jëf amatul ci yéeni yoonati seenub sang yéena ca lab moo lab ci géejug boroomam yéena lab ci gogam ku nekk wéy na ba lab ci cant kenn du xarab yàllaa ko jox lu ko doy moom it mu jox nu lu doy ku nekk faj na sa lor jot laa ki cant ki ndab tabax gi yàlla na ciy tàbbee ka génn ka bég ba yàlla àtte mu ràpp ak jàmm lëf bañ a jib tabax gi yàlla na nu ciy tàbbee ka génn ka bég ba yàlla àtte mu ràpp ak jàmm lëf bañ a jib te yàlla na nuy dund kay doyloo ka am yu nu doy te ëpp ñépp dugub faw ak ëree na ku sëpp te saa su jot sunu digg ak ban ba yàlla na fa gën nuy mucc kay jariñoo kay am ñu mucc ayib sëriñ si yàlla nañu dem yéefar yi yàlla nañu dem taxaw ca xol ñu dàkkul ñépp sàmba sa be waa penku yal nañu dem waa soowu yal nañu dem defar ko ñibbeeku yiw jam rab wu dee sira bi ku nekk yal na ca dem def lépp lëf lu mu man ñu yokke caw fanam ak jàmmam fegal ko sobe yal naa ca def lu ma man yal naa ca def lu ma am yal naa ca def ku ñu dul gis muy yaboo ka yabe te yal na xaalis bi tuuroo tuuru ñépp di am lu ñuy musag lu ñuy cey tàbbal te kenn du lebi li dee si am ci jumaa ji jar na xëy ni rajax sa bopp toj boole sa yuur ak simon di tabax sëriñ bi yeema te may mag farlu waxtu jot musal ma ci nelaw ak càggan kobas manu wéy yërëm ma teete ma dee yang man fu kenn newul yóbbal ma yóbbu ma def ma xej ji faw bu rëy te daa nga yee nit ba muy def man nga xëy ni ko yee bu loolu am sama digg ak yow te kat bu ma jay musal ma cib jay fegal may nax wutal ma lu wér sama murit nay sore kiy mooy te ànd aki may samay murit nañu yokkuk baax akuk bari nag may jëm kanam aka way ñuy jëm kanam aka way fagul mu cant ki ndolleen mbàkkeloo ma saman te may nu meewum ngërëm moo xam ni nëm mu la way man dugg naa ci yow ak saa lépp tëj ma ci yow te tëj sa bopp ci man may ndab lu set la nga duy sakal mu am ñag bu deeful bëtt deefu ko tëb ba képp kuy ne ca biiram am njariñ rawu ay mboolem sunuy kër na fees ak nit ñu baax ak yëf yu am njariñ sunu diggante birax te du fay najanti cant ne tell ak jàmm fenk bu wér ci sunu digg ak yow ba mboolem nit ñi waaru ni cey nun war nanoo boole tuub ak cant ndax te nu raw lu bon te jot ngërëm ak ndolleen di jaaba ke wey sëriñ bi yow ki amee xar baax ak kiimaan sarax nu dëggati ay xar baax ak kiimaan ku mas ni ñokket fasoo feeñal ayib ji ci nun nga dal di nuy dikke ay xar baax ak kiimaan bu dul ko nag yow ñu gis bon gii ni gumm ci man yaatee ñu séere ci man mii bon gu doy kiimaan sangal sama bon te sangal ñépp seeni ayib bu kenn seeru lu bon yow daa la man kiimaan fam naa la sange sama bon fab la sange bonuk ñi lay gëm ak ñi ma doyloo dolli nuy kiimaan may nooti xar baaxi mbég yoo xam ni bette na ak kiimaani cant yu rëy doo jeele yow kiimaan màngal lu ñépp ni ngéej ak mucc faw gu wér ni xëpp benn ci nun yaa man lu doy kiimaan nun noo di say band feesal nooti dell ci kun nit ñépp xëy fekk nuy rembat ak yi kiimaan naxol yi fees ak i mbég kër gépp fees ak i mbég waa kër gi fees ak i mbég dell ak lu mat kiimaan ndimal lu rëy laa la ñaan ak xol bu sedd bu set ak fan wu gudd wu nee faawi fanay kiimaan te saa digg ak yow ne wér leerit ba àjjana far ba ñépp naa bii diggante mat ndaxam kiimaan yërëm wallu nu yow sag wall daala rafet day bette noppale neexit nag ba doy kiimaan wut leen a wut barke tey muñ wépp tii saku naaj ab xol bu seddee boroomam fàtte tii saku naaj yéenay murit yéen a dëggal waaye yal na nu am ndamam te am lëf lu benn lar ñimee gu la laaj jàggee na jëf ñime ngeenut coono yal na nu am tiraanga joo xam ni jii day sax fi nun te du xaaj nun ñépp yal nanu ndéegoo barke def njoganal ngërëm te def àjjanab añ reere ndam ba ni faaj nun ñépp yal nanu for ab dog bu nuy taxaraw méppum dog ak lépp lëf loo xam ni day taxamaaj murid ya daanañu waajas lëf ndigal sog a def te yéen a ngi ko ci am sennas ndigal du ko waaj koo gis ci yéenit bu njël dee jot mu song ndigal tey wetti aw ñaxa kay not bépp noona ka daaj bu bët setee daara jéppit doo ca fekkati nit mbaa koo ca fekk dafay koo xam ni woppa ko taaj fasoo na maa def ci yéen ak ban ba cant gu tax yonen ba bég yàlla bég saytaane mecc ni raaj yéen ak sëriñ bee waral may jiitu ñépp ak a gën budul ko nag seeni ndimmal ñépp bokk ma ñaaj nu ñépp yal nanu mbar tey bar ëllëg bu rafet teraw ëllëg gaaya fay bar yépp raw ña fa waaj nu ñépp yal nanu bar tey bar ëllëg bu rafet teraw ëllëg gaaya fay bar yépp raw ña fa waaj mag yal na fa wépp yiw jébbal nu fawuteful mboolem ñi dox sama digg ak wépp tii saku naaj tey boo bëggee am ngërëm tuubal te génne sa xol lu dul sëriñ bile kon ngay gis mu sant la yow ndab boo bëggee ku ko duy jàppal raxas ba mu set moo ndab lu taq ku koy duy tee nga maa wuyu yow ab xol bu dee bëgg dunyaa booba xol wéragul mat naa ragal ba mu wér déggal ma wax jile yow ku ràgg faj ko ba ràggam gépp wér ni pelan moo gën la koy taxa yokkug ràgg xam nga ko yow fexee la am ndab lu yaa set wér rafet sa bakkan kon kuy duy dab balaa duy ndab duyal si la yow te loolu ndab moo di xol boo xam ni set na welas ba dootu daj lëf lu dul aw yiw sabab lu ko yow wallaahi man bëgg naa xol bii dama mënalul saa bopp lëf may ma xol bii mbàkke man nga ko yow xam naa ni man taq naa xam naa ni man tere naa xam naa ni it man nga maa sellal te maa ngi fi yow man nga raxas sama tër bii man nga maa setalit doojee la mu këti saaboo kum ndox ak xeme yow saaban gi yëg naa ko yëg naa lott gii ma dalit moo tax ma boole samay mbir yépp jox la ko yow baaxal ma may ma sa bopp ak yàlla ak sa ngërëm te yor sama xol ba dootul bëgg lëf ndara yow yëg naa ni yow nag bonoo lottoo te yéene nga am sarax ma ngir yàlla mboolem yiw wi nekk fi yow foo yëkkatee tib sarax tàllal ma booba sarax ngir lott naa maa ngi nii it tey yërëmtalu yow foo bëgga dem na nga wut loo yóbbaloo sog a dem kon boo demee doo fa lor yow nit te doo fa loru kuy dem te yóbbaalewul yóbbal bu doy fa mu jëm kookee du bég du bégal ngir day loree ka loru yóbbal bi nag moo di fàggu bi yar tewal mburu yor foo dem di may koo fa gis ab yar di mës sa mburu ku nekk war na ma balaa dem fa bi yarak mburu yor ngir dikk fenn di waxtaalal du xeeti yaru ku nekk war na balaa dem fab yarak mburu yor ngir dikk fenn di waxtaalal du xeeti yaru yóbbul yarak mburu boo dee tukki kon danga bég bégal barab ba nga jëm ngir doo loree ka loru murit bi àndaara kub seetoo ngi nii laxasul te daldi natt sa mbir fab seetu bii seetoo sa xol bi boo ko gisee muy daj lu dul sa sëriñ xamal ni buura la góor lii doy na ab seetu lu yàgg-yàgg bu dootul daj lu dul sa sëriñ buural nga àndaari ndam yow far nga dib seetu mboolem murit bu fasoo xam ay mbiram na mu day seetoo ki àndaara ngi nay nattakay seetu yow Baabakar dëgg bul ñee kenn jur gu bari mbaa kër gu jag aki soxnaa ki murit yu bari la dee fi ñee ban ba ak yonen ba ak ña ko roy du jur du ay kër du ay soxnaa ki nit ñu bari fexee la rëkk sa diirub dund yow ci ndigal kon lor ju jóg mooy la mooy saw nit te mooy sa barab fexee la dëkk sa diirub dund yow ci ndigal kon lor ju jóg mooy la mooy saw nit te mooy sa barab sa xol na sedd ci man saa xol na sedd ci yow teeg ëllëg yaa xadimal mustapha wuyu ma loo xam ni daa nga ko sàkkoo kay mébét ci sa kog yal nanga ko làqe ci man làqa ngërëm wuyu ma teeg ëllëg waaju dul yonen ba yal na la ñee te jépp waaju fi dul yow ban ba yal na nu ñee yàllaa la def kenn doo am ndend jàpp nu def ngën ji murit bu murit yépp ak sëriñ si di ñee dalal di fab sa kurus tey si karoo katasab lu dul li ngay jëf du ànd ak yow bu dee ganesee deemat la dox di ragal mooy daala mat di ragal ak saa su wéy te defoo aw yiw ca soo sale saa murit bu dàqee yeneen ti yëf ñu génn xolam mu tàbbi pee yu boroomam ànd akub sëriñam yeneen ti yëf yi ma lay wax nag xarit ñi ngi nii sa bopp ak képp ak lépp ak fu dee fi xalam kuy tabbi taaxum ku maandang sax du ànd ku nit njegam nanguwu la tàggoo nag du dem duñu dem njegam kumaanda nga bañ lii gën ka bind aras subhaanahu jaayelug bokkaale jënd ngërëm jóg jëm ci buntu ñu fab ay yat nikee bu mu ñëw luy tax mu am dee ko daw ndax ngën ji buntu nga jëm luy tax nga tàbbi ca buntu bi yàlla génn ki ndam lu metti metti defal bul sib lu lay joxi ndam te naaju mbay li mu saf-saf muñ ko muñ gu rafet moo gën di xaaraane sab nawlee ka bëggi yëfam dénkal sa xol bile ak say cër sa sang bi kon sab xol di fas ngërëmam say cër di jëf ndigalam sab sang teg ko ci sab xol bul nangoote mu dem kub sang génn xolam saytaane tàbbi xolam sab sang tëj ko ci sab xol bul nangoote mu dem kub sang génn xolam saytaane tàbbi xolam xol kër la gug boo ko seetee faw fekk ca lëf teloo ca fekk bu génnul leemu waayi kemam yaa ngi sa xol baa ngi nii nag dee ko seeta ka yër lu bon lu ciy dugg boo daqul mu def ko këram bépp murit bu fasoo jël ndam na génne xolam mboolem lu cay yar yaree kay daw lu dul sëriñam ma jox fi aminatab dénkam bu sedd xolam ngir yàlla ak yonenam ak ban ba mii di magam yow soxna aminata yeewul te sant gërëm canta ngërëm moo la war ak roy sa mag ji ci gëm koo seeru may ko sa yëf yow mii te naagu yëfam jégal ko gépp moyam lii rekk moo di sa ndam ab sang day muñ di jéggal ñéppi moy te du moy tey doy lu doy lu gu wér wëllis ku nekk yëfam ak canga ngi lu ko moy du càng ndof la gu réy li ñépp jëm léegi def ko càng yow bu ca jëm jëmal ci yàlla te doy loo yàlla ak ndigalam bul fàtte it senn saa bis penc baa ki mbiram bu nit ñi dee fàtte dee kay bég ci àddina ji fabal sa xol teg ca dee ak yàlla yow te xalam bu nit ñi dee fàtte dee kay bég ci àddina ji fabal sa xol teg ci dee ak yàlla yow te xalam bul soxla woo lëf ci dunyaa ji lu dul jëfi yiw ku nekk day mujj wéet ak ay jëfam ci paxam boroomi yëfi yoofu gis day mujj ñàkki yëfam boroomu nit ñoofu gis day mujj ñàkku nitam loo saytu dem ba ko mbaa sax loola dem bala yow sa jëf ji nag du la baa kay dem te doo ko ba dem boroomi yëf dana tàggoo kiy yëfam bu rafet boroomi jëf nag du tàggoo kiy jëfam fu mu jëm fabal sa jëf jile ngay àndal defar ba mu jag koo gis jëfam jala am lii rekk moo mata xam alxamdulillaahi tey sab dénkangoogu fabal mbooleem ku def li ci biiram am lu sedd xolam sëriñ bi yal na la may ak cant may nu ngërëm te may sëriñ abduraxmaanit lu sedd xolam ànd ak lu bon gën a bon ànd ak ku bon gën a bon day lakk nit di ko teg gàccee ku ay akotiis lëndëm gawaa sa waray sax ak mbugal gañu sax xalam ko man naa waral ab jaama ñàkk garis noonu lañuy dëkke faw ak xol yu tàng yu ñor kooseeru muy bëgg a génnas lëf te kenn du ni riis ak mooy la muy jurëre yi ak mooy jërul la mu jur lëf wecciwul ne ca naari yuuxu nee fi la nuus réeréy lu bon dëgg cib lar yal na génn ci nun xam yàlla dëkk ci nun nuy teggi luy juru tiis ma yaa ngi def jóori jóor ak jaagi jaag ak jóog yàllaa nu may wala ngaanum cant ñépp a ngi fóog njariñ yi tuuru na xiiwal yaa ngi walwali nag béréb yi nee nañu dellañ bég mu nit masa foog xel yépp dañ nañu biir ak biti dal nañu it fit yépp dal xol yi booloo sedd jàmm ngi boog ñun barke donganu dal ak cant donganu jot lu jar bakkan noo ko far jël jàmm xëy nanu fuub yóbbal bu réy bii ñu fab jébbal nu moo di xetug firdawsi yal nanu koy jaamoo ba dugg ca toog buurub aras moonu daaral xëpp nuy njariñam xabal sunuy bañ ñu rët am gàcce bokk ni miig moo jàpp nguuram gi jébbal noo ki cantaki ndam notal nu bañ yépp ñuy suufee ka soof ak a diig diigal na Firxawna ak mboolem ñoñam ñu ni mes musal na Moosaa ki gaayam jëkk démb ki biig diigal na mboolem sunuy bañ yamb yépp ni mes nu des fi mujje sunug lem noo ngi naan ak i koob penkoo ki soowoo ngi mujjëg lépp ndam ci sunuy yoxoo ki mbég ku nu daa gis xam ni tey du keroog jël naa ndawas ndimal ak jàmm nga ne la ko yiw ña daa jamaalee ngi may santoo ko def sama ndiig àddina wépp ayam raw naa ko wépp yiwam jot naa ca am wala ngaanum ndam mu ñépp di fuug ndegam dangay woote te ngaa woo ka bind njariñ mu wuy si laa ki njariñ moo ëpp ñéppi njariñ woo naa ko yal na ni jaas ak jàmm ak njariñam jox may njariñ yu ma doy jox ñii ma soppi njariñ suuxal na néegi njariñ ak bëkk néegi ngërëm moo ëpp sax tëre sool ak banque fappi njariñ moo am lu faj aajo am luy dàq lor te amul aajo ki lar yal na faj aajo ki lor te jariñ moo am lu faj aajo am luy dàq lor te amul aajo ki lor yal na faj aajo ki lor te jariñ yow dee ko dimbandikoo yow dee ko sukkandikoo yow dee ko wéttalikoo ñoddee ko lépp njariñ doo fàddu mukki gëtam teewal ko yow fi sa xol bu fàdduwul xol bi doo bon doo fasee ki njariñ moo sax fi yow ku ko mooy day teewi saa demi saa saxal ci moo man digal kon lee nga doy la njariñ du jóg fi yow senn saa bul jóg fi moo mati saa xamal ni kat sax fi moo may ndam di lépp njariñ moo saytu lépp njariñ wutloo ko lépp njariñ jañ loo ko it jépp lor doy loo ko moo di njariñ yal naa ko jàpp ngërëm doy loo ko am lu ma doy mu dolli mag doy lu faw ak yëf yu doy yu jariñ yal naa ko am mooy ci moom ak lépp lëf lu ko saf safoo ko saf ko mu sëf mag cant sol ma njariñ yal naa ko xam-xam gu wér doy loo ko doy ko bu wér nu faf doyante di santante ka sax ci njariñ ñag baa ngi nii wër mu kapp ak jàmm yal nanu ñag bu wér ba wër àjjanay firdew si wër bu rafet saytaane yal nanu dànd ak wépp tiisa ku ay nu sax ci jàmm ba dem firdew si dem gu rafet jub yal na sax teg juboo sax jàmm sax ku ne jub juboo bu wóor ak boroomam faw lépp rafet yal nag jub ak jàmm ak jàmmoo ni dàkk fi nun nu sax ci jàmm ak jub ak jàmmoo gu wér gu rafet soppante yàlla na sax santante sax gu rafet jaam ak boroomam juboo bépp diggante rafet jëkkër jabar kilifaakub surga yàlla nañu sax ci jàmm daal ak ci jàmmoo lépp sax ci rafet sëriñ bi nun yaanu rokkas yaanu roofatu yiw yaateenu af yaanu te xëy daanu yaa gën a baax sëriñ bi nun yaanu rokkas yaanu roofatu yiw yaateenu af yaanu te xëy daanu yaa gën a baax doo fecc wëllëre doo bés kenn doo dige wor ku dul yow ak mën a yam yow rekk rekk a fi baax ku dul yow ak mën a yam day gindi def lu rafet delloote ci bon bonam yow rekk a way ci lu baax koo xam ni kii mas na noo xëy wàcc xëy nga nu yow wuutal nu fukk kemam cey saw defi naka baax bu dul ko nay yow nu xëy bis daanu jëll bu rëy fegal nga nu jëll dootum daanu yaa gën a baax fu mën a sébbi yal na fa sébbi fu ñàkk a sébbi yal na fa sébbi yal na fi ceebo mu ëpp ceebo te gëni ceebo ñëw ak sëriñ bi yal na fi barke ak xiinu barke wàccewu barke bu màgg tàbbi yal na fi xitti waame wu bette wu ñépp sante ba jiika tobbi yal na nu gën teel gënum nawet teel ñépp tëjël teel ndamal nawet bi yal na nu ndaanaan musal ci ay daan te def nu ndaanaan ci sañ-sañam bi yal na nu may ndox gàncax gi fet tax doyle mbay ak ndox ñiy génge añ bi kilifa bañ tooñ surga bañu tooñ yabu sasak dooñ dëkk ci noppi ku nekk sotti jëf-jëf ju sotti te am lu sotti lépp di xëppee gopp yi sàppee ñépp di tobbi saf bañ a sàppi ku jub du sàppi yal na sunuy tool nangu rafet lool fees ak ñu jub lool della ki sàppe yow yàlla wax ci yonen bi wax ci sëriñ bi wax ci ba fépp séb bi yal na texle texkat yi bayle baykat yi musle faw te bégle yal na nu waxle yal na nu jëfle yal na nu fasle yal na nu farle yal na nu xejjal yal na nu ràccal yal na nu bàccal yal na nu forle yal na nu wayle yal na nu mayle yal na nu jañle lépp lu lëjle yal na nu jag lool yal na nu jub lool yal na nu gën lool ñépp te ñoŋle yal na fi sébbi ceeba mu xëppee ndam ba mu sàppi te bañ a sonle nu ne ca ñabbu jote ca ñépp jiitoo ca ñépp jàlle ca jàlle yal na fi barke bépp ak ña barke dal ñépp tekki nu saf te safle ku barke wàcci yal na fi wàcci te fara fi wàcci gaa yu nu sëfle yal na ñu wàcce barke te wàcce ñañu ko wàcce ci nun ñi sewle yal na ñu wàcce barke te wàcce ñañu ko wàcce ci nun ñi sewle yal na nu jub lool jubum nawet lool gën ku ne mbay lool gën koo lewet le nawet bi yàlla nay bari ndox ak mbay loola njariñ tey bëgg ak a bégle ubbil nu bunt buy jariñ te daldi ub budul jariñ te may nu tawféex ak njariñ faw ak dugub ju bari lool xëpp nu gerte gu bari gu werte yëkkati përe teg nu ca kaw gaa yu bari yu ràññikoo ràññiku lool foo dem ña ngay watee ka wat foo féetewul foofa du wat foo féete nag foofale wat wat nga ci ji jamono lool fu nu ne yal na nga fa ne foo nekk yal na nu fa ne yal na nu ànd ci lu ne te bari jàmm ak doole lool yàlla la farle ba nga wat na nga nu farle ba nu wat te ëllëg bu ñu nu wat ci genn wet waane nga lool yàlla la farle ba nga wat na nga nu farle ba nu wat teeg ëllëg bu ñu nu wat ci genn wet waane nga lool na nga nu may wétalu biir ak wétalu biti wu wóor def na ko buur ak gaayu buur di dimbalee ko bége lool turikki def nu menn ngaax moo xam ni nii day wati ngaax faw te kenn du seeru ngaax mu ko watit diisal nu lool na nga nu may gerte gu diis ak jëfi yiw ji diis a diis te lu nu bëgg nee ko nuus jox nu nu jël sant la lool addina baaxal nu ci lool laaxira yéemul nu ca lool may nu ci yow lu jafe lool lu jafe yomb na la lool ña dee fi ñee teeg ëllëg nañu ni ñee teeg ëllëg te jox nu tey jox nu ëllëg lu ñépp naw bëgg ko lool def nu boroomi sutura te def te def nu buuri laaxira boole nu def ñu faj dara teeg ëllëg ñu tekki lool def nu boroomi sutura te def nu buuri laaxira boole nu def ñu faj dara teeg ëllëg ñu tekki lool fale nu fii baajjana fabe nu fii baajjana ruse nu fii baajjana te may nu xol yu sedd lool seen mënu ame ci yow teeg ëllëg mu cëkku yiw yal na nu yàlla tin ci yow ba ca kanam tin la ci nun senu nanoo amee ci yow teeg ëllëg mu ca ku yiw yal na nu yàlla tin ci yow ba ca kanam tin la ci nun may nga nu jàmm ki ngërëm ak i tiraanga ak i dërëm sutura nun daal a ko am budul ko nuy yow dana bon na nga nu may kattan gu nuy sante sama yi nga nu may defal nu it barke ci mbay nawet bu ñëw nanu fa gën nawet bi ñëw may nu dugub ju bare ak gerte ku sëb ba kenn du day ni nun dugub ak gerte ak sëb ku fan fàggul nu wërsëg wu bari ak fan wu sut fan yu bari ak gaa yu nangu yu bari yoo xam ne lépp lañu mën mboolem sunuy pexe na jub sunuy biir yépp na jub sunu digg ak yawit na jub faw musal nu it ci fen dakkul nu mboolem ku nu siis fegal nu sarwiis ak ku tiis bul bàyyi sarwiis ak ku tiis muy jëm ci nun mbaa ñi fi nun bu kenn am ci nun yoon ndare ko aw ci ngën ji yoon te yaa fi aw ci ngën ji yoon sarul ni medd ak mépp tan ñedd nanuy soree sori ku cay mosit nanuy sori faaw te yow bu nu sori jigéenu def nu sangatan leeral nu leeral fu nu ne naatal nu naatal fu nu ne neexal nu neexal fu nu ne nuy sant kay fekke déen li nu la sant sant ren cant gi yàlla na raw déen déen ju ñëw nanu fa gën fopp te teewe ko ni ren dol nu xam-xam njariñ bu ñuy fegal lu dul jariñ fa wakka ñoddi li njariñ ak yi ngërëm jëme ci nun yow yàlla yaa yaatu te yaatu yërmande yaatal na yow mii ci yow ak sa yërmande tabal na nun ñépp ci jëpp yërmande te may na nun ñépp sa jëpp yërmande kuré nga yow ku yaa ku yaatu njëggal yërëm nuy may nu yërmande ku njëggal kuré nga yow ku yaa ku yaatu njëggal yërëm nu may nu yërmande ku njëggal soxnaa ngi nii dooma ngi nii bijaawa ngi nu boole am tey fooka mooy lu ñaawa ngi sopp nu nun ñépp te soppi nu ñu jub ñu rafetuk tuuba ki jëf mu jëlu jub def nu ñu rëccu seeni mooy ñu dëggal baraw ña rëccu seeni mooy ña dëggal def nu ñu dëddu la la neexul lépp faw te sax ci lu la neexit lépp def nu ñu dul moyeti mukk lu la neex def nu ñu dul jógati it ci lu la neex def nañu lay sant ka gëm ñoo sant ñoo may sa bopp ñoo saxal ci cant koo ji ci nun siram yaxar na xottiku xaral nu baaxati bu wér ba xotti ko xotti ni mbégu rafet ak xari nu ndam woy tax mu sangu ba doyal tangoori ndam xottil nu càngaay ngeneel ak tawféex ak ngërëm ak barkete may nu tawféex sol nu luy tee nu gërëm te sant te may nu luy tax nu gërëm te sant tëjal nu bépp bunt bu ay di bawoo ubbil nu bépp bunt bu yiw di bawoo dol nu yërmandee ki keesi warga ak i peñ ak saakuy kafee ki surga ku nekk sant ko te sànni ko baluut mu sant bég ba sànni la cant guluut ku nekk sant ko te sànni ko baluut mu sant bég ba sànni la cant gu luut luutal nu mboolem sunu dab yi ci sa géej gi yow ba yépp rembat ak lu ñu ni ngéej xol yépp yal na ñu ne dell ak yàlla cër yépp sax ca la war ak la yell yal na sunuy yoxo ne dell ak xaalis bu lew ñu teg ca may nu diinul xaalis wet gu ne yal na nu ca mat sëkk tëriis ci wet gu nekk saqu yiw te bañ a ruus yal na nu sax dàkk ak yaram wu sedd ak xol bu sell bu rafet bu sedd bani ca firdawsi yoxoos ak sedd ga tëdd ca faw ak sunu jépp tedd nga di sant yàlla ak a gërëm ngërëm lu sax mu di nu sant ak a gërëm ngërëm lu sax nangul nu yow yàlla ci barkeb ña la gëm ñépp ak ci barkeb gaaya ngoy ca ña la gëm jëmmi sëriñ bi laa fa bëgg mbootam ruur sama digg ak wépp ak méppum ruur baaxam nga laa fa bakki xar baaxam teg sama digg ak buur ak ku fi si mbuuram teg gëmam gu yéemu gu rafet galaa ñage sama kër ak sama mbay ak lu ma jige xam-xam bu rëy bu am njariñ ba ne ca moom laa wooye ñépp ak seeni yiw jëme ci moom way gam way ca yàlla laa ñaan ak way ci ngërëm ak ngërëmam ak moom ak way ci wërsëgam wu rëy wu lew wa bari lool laa ñaane wërsëg wu ma lew wu bari lool doylu ga ak doy am gu wér gu sax galaa ñaan ak doy ak doylu gu àndul ak balaa ca doy ga ak doylu ga laa ñaan ak doy gu wér akuk doylu gu gën bàyyi ndey ci gépp keem ak yërmandeem ak barkeem laa ñaane keem ak yërmandeem ak barkeem ci yépp yi wu mu defal boroomam ak yépp yi wu mu defal moroomam laa ñaane tiime képp kuy sama moroom fa nit ñi ñépp ak fa kay sama boroom baykat bu nekk ak la mu bay yal nañu ñoŋ te sax ci jàmm ak yépp yiw dëkk ci ñoŋ baykat bu nekk ak la mu bay yal nañu ñoŋ te sax ci jàmm ak yépp yiw dëkk ci ñoŋ buurub aras yal na nga wàcce barke ci nun bu rëy bu ëpp bépp barke may nu lu waa penkoo ki waa soow di yéem faw ak lu waa suuf ak lu waa kawit di yéem te kenn du wax dara ba tax ma yàqu kenn du defit dara lu tax ma yàqu musal ma man ci lori nit ak jinne ak lépp luy lore te jox may junni def ma ku làmmeñ ak bët ak xalima dul manal lëf ak saytaane lëf bu mu ma dal buy wax bare bare bare bare bari ba man ci man dara lu néew ak lu bari bu aw nit it bare bare bare bari ba man ci man dara lu tuut ak lu bari te yépp ay wuy mën a néew ak a bari bu ma ca am dara lu néew ak lu bari wépp yiwit wuy mën a néew ak a bari bu ma ca ñàkk lëf lu néew ak lu bari bu jàngoroo ki dee ki lor baree bari bëlëb xisaw ma ca lu néew ak lu bari sang bi yal na boole ñépp sang ba ñépp sangu ku ne mel ni sang dàq na mar wi ba mu daw mu dàq xiif rafle wi it yal na ko dàq mu ni fiif sant ma war yal naa ko def te sax ca sax guy waral yàlla gërëm te sax ca lépp lu ñuy bëgg defal nañu ma ko lépp lu ñuy bañit fegal nañu ma ko xéewal yi wër nañu ma man ni ndomba ñëw ma kuy faloo ko takku ndomba lépp lu may aajo ñu jóg taxaw ca lépp lu may digle ñu bokk aw ca man lii ma am ak may la waaye du pay suuxal na sax bépp liggéey ak pay képp ku mën na dal di ñëw sant le ma bégle ma lëf way le ma lëf gërëm le ma man lañu may lépp ngëneel ak yërmande ngir baax akuk tabax ngëneel ak yërmande man lañu may lépp ngëneel ak yërmande ngir baax a kuk tabak ngëneel ak yërmande mboolem ña bëgg sama ndam siggi nañu mboolem ña bañ sama ndamit sëgg nañu maa am lu rëy ngir fu ne am naa fa ku wér ku may waxal lu wér a kay defal lu wér yàlla tegal na ma fu nekk waayam joo xam ne jii def na ma faw waayam ñépp a ngi may waxal lu baax ka defal fu nekk yéene lu ñu am man lañu fal man lañu may xar baax mbég ci àddina yu mel ni àjjana sama xol sedd na maa ngi ci àddina di seenu àjjana yal na mu sax ci mbég ba dugg àjjana xol yal na talli sax ci butt ak ñay yi ba nu nu bis ca kaw lalam ya ñay yi yal na ma am àjjana faw ak rakkam àjjana nag barke bu màggay rakkam yal na nu ngab rakk ja tey wut mag ja jàpp ca rakk ja ba jot ca mag ja yal na nu ngëb rakk ja tey wut mag ja jàpp ca rakk ja ba jot ca mag ja ku bëgg a jal rakk ja nag teg ca magam na xëppi rakkam ak moroomam ak magam yar bu rafet te joxe boppam bu rafet ni xër duniyaa ca ginnaawam bu rafet waxtu wu nekk muy liggéey ak a joxe te bañ a yokki bañ a naw la muy joxe mel ni ku sébbulu ni ca si wépp jiwoom teg ko ca tey farlu ba xëy fase ki koom ab def ni jaasakuk ndafam buruujul jiwul bayul te nara daldi giijal yee ko ca ndof ga ba mu yewu jar def nit te bañ koo daldi fam ni xër doy na pajug aajo ca moom akuk pal moo ku yeyoo kaso na muy laaj ak pal xamal ne xam sa bopp gën loo dégg gën lépp loo seeru li lee dig dëgg xamal ne xam sa bopp gën loo dégg gën lépp loo seeru li lee dig dëgg tegal sa ñaaru tànk ñii cig dëgg te bu ñu teggi kooti bis cig dëgg koo xam ni dencul ndare seen nas mbarigoom te yori bor fu ne yu kenn mënu la miim koo xam ne dencul ndare seen nas mbarigoom te yori bor fu ne yu kenn mënu la miim du toppandoo ka denc junni barigoom te yoralul kenn lu dul yërmande moom yal na nu kooka boole noonu ñépp yërëm ci yërmandeem ak daraja yi ñamu gërëm te yal na wàcce yërmandeem ak sutura ci nun musal nu cig mooy ak ci sawara defar nu ci xar baaxam ak cig baaxam ci daraja yi ñamu defar cig baaxam xëpp nu ndimmalam lu dul xaaj ak a jeex ci daraja yi ñaam lu dul xaaj ak a jeex yal naa gërëm yàlla ak yonen ba sant sëriñ tuubaa gërëm ko te doyloo faw lii ñu ma may ko am yëfam fab ca laf jébbal la sant ca war ak doylu moo rëy ku am ak doylu am nga lu rëy te képp képp ku ñàkkuk doylu ñàkk lu rëy ku ñàkk sant lu tuutit ñàkk sant lu rëy xamay jurug cant faw ak doylu yal na nu xam réere jurug tawat ak bon faw yal nanu mooy ak réere bon ku ko def ak may du rëy fi bëtam ku yeewu nag ak mayam day rëy fi moo maka doy bul teg sa bët ca ña seenu jur labal la nga am ci jur xarak gaynde ñoo yem koo ci gis dana rey tegal sa bët ca ña sag jur ëpp jur gañu am kon jàmm am gërëm ak santante am nga ni cey addina kenn matu ceeñee ngir kalal samu am ña dëddu addina wey ñoo mat di ñee ak roy addina kenn matu ceeñee koo ci gis la mu am lu rëy rëyit xaaju koo doy ñépp a bokk ni woy ndaw ñépp a bokk ni woy mag ñépp a bokk ni woy ku dee fi ñee ma nga naafis ruq wuy sama ndey kuy mos lu faw mu xul kuy mos le faw mu xul àddina moo di kërug ay kenn ñekku ci ay nun ñépp yal na nu doyloo yàlla am lu nu doy ni dàkk ci cant doyloo faw lii ñu nu may xam yàlla daal ak ragal koo màgg dëgg te ñoo waroon a jomba amit tey gaayi gaaye ko xam luy jombatee am bi liy jombul xamul gën a bon xamay la am solo biir ak biti yal na nu xam buurub aras def moroomam rekk a jomb lu dul defub kemam loola mën naa ñàkk am mën a am lu dul di jëmmam ja loola may la jomb la gis caab laram gis laram buy mooma jomb ndaxam mayam gi nag li mu rëy rëy rëy amaana nga am amaana it doo ko am dig waa ngi ñépp a ci yam du yàgg yàgg ba yow ngay yàlla mukkute kët du yàgg-yàgg ba yàlla yow wutal ngërëmam du yàgg-yàgg ba yow nga yàlla mukkutekat du yàgg-yàgg ba yàlla yow wutal ngërëmam moo féete kaw féete suuf ak fépp féete ko yow ci jaamu faw te sax ci cant sax ci mbégam bu yootu mukk palaasu bi yàlla jomb na lar bu nekk yootul nga neelam yow te ñaanu yiwam moo tedd moo tabe mën naa fab yiwam wu mu am jébal la lépp nga dib jaamam bu saytu yëfam lu nekk mën na ko biir ak biti waaye du tax mu def la mukk kemam lii man manam du ca jëm li yàlla man doy na sëkk ak barke yàlla na nu jox mboolem lu jomb la am ci wiiw teful sunu gëm moo màgg mbir moo di buurub dëgg yàlla na nu dib dagam bu bépp dagam ñee muy gërëm di yërëm nu ñépp yal na nu raw ay wub laram masa raw te am ci baaxam gi nag yi wub laram masa am sëriñ bi laa ñage saa bopp ak samay dëkkandoo te yal na nuy ñaga kay ñag loo ka may ñu na ñag yonen ba ñag na ko faw ak yàlla gaa yi badar ñëw boole koo ki ñagam wër këpp moo wéri ñag moo rëy te rëy suturaa ku may te moo rëy yiw moo ëppi ndam gaaya am ndam yépp yal na nu ñag ñagam ba yal na nu wër géttam ga yal na nu wër te yal na nuy joxa jox xontam ba faw waka ñag nun ñépp yal na nu jox xontam bu sedd ba xol musal nu ci dagg njël faw ak lu nuy xañ ñag xontam ba yal na fi tuuroo tuuru tuuru gu bir te xëpp fee xëpp sax fee sax ñu boole nu ñag moo saytu xont ya ak ñakkat ya yal na ni cas xontam yu tedd ya jébbal noo ki bari yu nu ñag moo sedd xol moo seral xol guy yal na nu yor te saa su ñëw yal na nuy dolleeke xonta ka ñag gëtam ga yal na nu cay sax sax gu sedd xolam guy tax mu dolli nu sedd xol gu wóor aki ñag xolam ba yal na ne dell ak mbég ni guy yi ci nun sunu xolit sax ci guy ak mbég mu gën ñagi ñag yal nam xelam dal ci nun njortam rafet ci nu nit yaakaaramit rëy ci nun muy bég ci nun dinu ñag yàllaa ko ñag faw ak yonen ba yal na nu ñag moom it ñagam bu nu tee gis lor bu gën ñagi ñag kumtee ngi dikk balaa ñëw yal na fekk nu am ndimal te bokk ca gaayey teewe ñëw gëte um te kumte guy xala ñëw nun ñépp yal na nu koy teewee ka um faw a kay sellal te yokku ca gëm koreeki kumte lu ci yëg seeti yal na nu koy teeroo ka màggal a kay teewee ka taawu ndamam tabaski ak tamxarit ak gàmmu lépp lu ci ñëw faw yal na nu koy teewee ka gunge mu dem rakat bi yal na ni xettit lépp lëf lu nu bañ suulal nu cim kan mu deeful solli ñépp wedam raykat bi yal na ni xettit lépp lëf lu nu bañ suulal nu cim kan mu deeful solli ñépp wedam guddee ki bëccëg saxaar ak waxtu yal nañu nuy yëtaale luy seral lub xol dolli jàmmi yaram toolan ndigal jàkk néewub tukki yal nañu nuy may may gu tax ñépp ñeenoo ñee ba ñoo ni goram bu jant dee fenk mbaa muy sooti yal na njariñ ba woo ca kay jariñee kay musle ñëw ni jirim àll ak kërëg fu nu fuy tollooti yal na nu fay mbooloo yu sedd sunuy xol guy yi wër nu tirim buurub aras ak i xejjam yépp yal nañu sax fi nun te sax ci sunuy xol jox nu seeni ngërëm bañ yépp yal nañu ànd ak wa ay wépp ni mes banoo ki cant ci kaw suuf ak yi saf ya xoram bañ yépp yal nañu ànd ak ay wi wépp ni mes banoo ki cant ci kaw suuf ak yi saf ya xoram nun yal na nuy teewe gépp kum te faw waka um te teewe gépp koree kay taawu mbég mu ca am jullit ñi kooray nuyoo jóg fay ko war na ci yéen wutal ko it dal bu sedd xol rafet na ci yéen dalam bu sedd dalam bu sedd ba ab xol moo di wàcc lu bon bañ caa xalam lëf te bañ caa def lëfit moyu leen bàyyim ndox ak bàyyi aw ñam nee ñu moo gën a sax woyof ci koor ak i sartam gaa yi déggati leen jàppal sa làmmiñ wi ak say tànk boo umatee tey damm faw sa gis bii jópp lii tëna leen di wax lu ay niwul ak ay yiw gënul ci ku um di wax lu ay nee ca yeesit lépp ay jalu leen koor ak lu dul koorayam foo tollu topp fa gën sori moyit moo fa gën daw leeni mooy sori leen yow boo umee amal bu yar boo waree amatil ab yar bu lëf mën a am yow mii ba tàggale leen taxoo ki teggiina gën loo man di dégg ak a gis tàggoo ki teggiina yeesit lépp ràññiku leen teggiina gën lépp day yokkee ka fekk lu ñu bañ te ñot di jàmm ak ndam ak barke ku yiw yaru leen teggiina rëy ku ko am rëy moo rafet ku ko am rafet ba dee ku ko ñàkkit ñàkk lépp te neen teggiina gën mbaxanaa kiy dall moo gëni sér kuy waaji lëf lu ko mooy doonam masaf ñala seen jullit ñi yal nanu am nun yar bu mat bu rafet buy tax nu jël ndam fa peeyub yàlla jël ko feneen te soo ma buuxoo ma sii soo mas lëfit danga ma yaatal xajal ci sa bopp ak sa yëf ak ci sa péey sa ruqi àjjana benn mab ruq caa gën a yaa diggante suuf ak i kaw say ruq yaa nañu teey sa jonga may àjjanaa xëy ñoo lef ak te rafet leeru yaram neex a gis njaxlaf amul ku ca géey ndaw soo ca teg bët mu dal sam xel te sedd sa xol ngay bég ci wax ju mu deeyul bég ci wax ju mu deey garab ya sedd na seddub xol te fatt ca kaw taraj taraj duñu am cee ñeeri jant saxeey këram ya kër goo ca gis day jag ba lëf du ca des biiram ba fees ak i cant ak yëf yu sedd xoleey wuntam ya ñoo jekk jub jag siggi yaatu rafet jargaaju jar jaayu jar sar xol la jar bakkaneey lalam ya boo ca toŋee yow fàtteloo ma sa toŋ ci kaw ngorog ngërëmal buurub araste mu ceey ñamam ya boo ca musee lu fàtteloo ma sa mus ci ñam wu neexul ku gëm day sant bul tawatee baykat bu dee bay ba angaaram ya wër ko di wéy jaagam ya wër ko di wéy muy fàttati su mbayéey kuy topp yàlla ba dem firdew si xeebi jëfam ngir gis lu suuxal jëfam ak lum xelam jotuleey labal nu faw ci yow daal ak sa péey yi ngërëm nu lab ci yow lab ci saw yiw dellu lab ci sa péey sab sang yow bu ca dindi lëf bu ca def lëfit moo sañ di dindi ci yow lu nekk ka def ci yow lu mu def te neexu la mbaam wax ko te neexulit ba ca rekk tey noppee ka muñ lii gën ci yow sab sang saw sa sa bay ko bay moo xam ni mii dana sedd xol tey seenu jàmm ak wépp yiw loo gis muñal loo dañ muñal loo dégg it bul faale tax taxlul ku raw ngir mii la aw ab xol bu tàngee lakk ñor bax bay wañax lañ koy seral nag gu yi yërmande door a ñëw mburu sax bu néewul xomm kenn du ko mos ba bég muuñal te muñ muusal te rës roy gaaya raw loo dàq yow muusal ba ngëb loolee bu wér loo xes ngëbit farlul ba loolee dootu raw bul dàq yow mii loo ngëbul bul ngëb lëfit muy raw dawal ànd ak ña raw dul teeñu daw bul yoqi bul daw yal na wall ga ñëw balaa ñeexee xërët jam seen xel njambey xisaw seytaane moo bon moo waral ñay dem taxaw moo tee ña jekkee jóg di wey bañ a tee taxaw moo tee goney màggal magam moo tee magit diiram gone ma ka yéene jàmm ka fab ca kaw moo tee jëkkër diiram jabar moo tee jabar di bëggal jëkkër jàmmay la am solo yal na xew ñun ñépp yal na nu jub juboo ku ne raw loram jot ci yiwam faw ak mbégam jàmmam di law buurub aras nun ñépp noo ngi def nu ñuy gërëmante faw ak a sax ci jëf joo sant yow dundal ma man dundal sa lislaamit ci man jàppal yiwam yépp ak ndamam tàbbal ci man duggal ci man dugalal ci man barkeeku yiw jébbal ma kun fa yakunu faw ak mbooti kun wëggal nu mboolem say njariñ ak say ngërëm ak say dërëm yët noo ki mbég yow daala man jébbal nu yërmande jépp faw ak wépp yiw ak wépp tagg ak lépp ndam yaa gën ña gën jébbal nu it géppuk jub ak géppuk juboo ak jépp jëf juy tax nu am géppuk yéwén dakkul nu it géppuk mooy ak géppuk tawat ak yépp tiis ak lépp luy tax a def lu bon yàggal nu loolit nag ci kaw suuf ak ndigal rafetal nu tey lool ak ëllëg yaa tondu jan gàddul nu fan woo xam ni moo sut wépp fan gën koo rafet gën ko mujjit cay woowa fan warlul nu jàmm ak jànnatul firdawsi ak sa ngërëm lu dul dañ yow ki dul fiiroo ku fen ambal nu tawféex ak tiraanga ju sax judul dañ mukk mukkati bis ju géppuk cant ron fital nu yaa dif dànn yow yaa dàq jam mboolem ña siiweg dànn nun fàddal nu ren fitalal nu yaa dif dànn yow yaa dàq jam mboolem ña siiweg dànn nun fàddal nu ren rabu ndamu mboolem rab ya ñuy ngéejoo ko wut na ca biiram ak muccug ren ak teeweg déwén ku ne yal na am muccug ren ak teeweg déwén te lu man di am may dund faw waka mucc man ku ñu dëddu yal na mu mbër ma wug jubloo ki ndam ak mbég te jébbal nuy kemam yu ko ëppi ndam ku nu sopp yal nañ yokk aw fanam ak gëmam ak wërsëgam seralub xolam dollik jubam ñun ñépp yal na nu sax ci ak jubakuk juboo ak jàmm tey jàmmoo ko jaamoo koy gërëm ñun ñépp yal na nu sax ci pull ak peq saa su ne tey gërëm yàllaa ka jëm fawit kanam ñun ñépp yal nan dolliku jub ak ñu jub ñu laf ak ñu seddub xol ñu am njariñ ak xoram gone yépp yal nañu dund dundal yoonu jub ba ku nekk boppam weexe niw dër jàmmoom mag ñépp yal nañu yokk aw fanakuk ragal yàllaa ko yiw ak diine nag ku ne yor mbégam